may conseillé. parlant de marée ñi nekk Bissau. waaw les sénégalais yi nekk euh, Ziguinchor di intervenir au niveau de Bissau. Mhm. day d'abord nee nañu mosoo fa ñëw nee nañu bëgg nañu nga ñëw fa. parce que ñu mën a waxtaan ak yow fan mënuma ñëw mosuma ñëw Ziguinchor. nee nañu Ziguinchor waaw ñoom loolu lañu wax. ñaat yoon. non man xam nga comme wóoruma dama lay. waaw non non dama ne la. ñaata yoon laa dem Ziguinchor ñu ne ñëw seet si leen Ziguinchor benn. beneen bi nee nañu bu ñu ils ont leur licence qu'ils ont acheté bu ñu demee dans les eaux bissau guinéennes dañuy jàpp seeni gaal xam nga ñu koy jàpp di leen réclamer déglu ñu koy jàpp baal ma jox la seen jàmbat non non xam naa lépp waaw baal ba pare parce que li ñuy jàmbat ci yow li ñuy ñëw naan ma dimbali ma ah, di leen man dañuy ñëw ni man dimbali ma xam nga ma jox la seen jàmbat rek dañ leen di réclamer dañ leen di réclamer entre un million cinq cent ak trois millions nee nañu bu ñu ko faje fayee dañ leen di naan fay ko par amul benn kayit bu ñu leen di defal attestant que hmm. euh, ñoom ils se sont de ces paiements là nee na bu ñu ko fayul dañuy jàpp euh, jël dañuy jël jën bi hmm. déchargé ko delloo leen gaal bi xam nga la mooy seen problème hmm. am nañu licence de pêche Guinée-Bissau en bonne et due forme en bonne et licence de pêche bi dafa ne la ñun fii ci Guinée-Bissau li ñu nangu mooy 6 mètres 8 mètres ak onze mètres ci pirogue loolu moo nekk seen code nga dem fa jënd fa licence basé wu Cap Skirring dem di fa pêche ak dix-huit mètres. loolu moo tax ñu leen di jàpp. surtout c'est aussi c'est aussi simple que sax léegi la nga réew bu moom boppam yóbbu ay taxam assemblée nationale ñu voté ko fa nga dem jënd licence bi jënd ko ci sur la base de huit six mètres huit mètres onze mètres. ñëw tëmbal gaalu 18 mètres mais ñu jàpp la tu es en infraction j'ai souligné j'ai soulevé le problème au niveau de la commission sous-régionale des pêches nga xam ne ñun juróom benn dëkk yi nga xam ni ñoo ñoo wër dënd bi ñoo fa bokk aujourd'hui le secrétaire permanent est mauritanien le secrétaire permanent sortant il est Bissau Guinée. mun leen mun leen yëgal affaire bi à 18 mètres puisque sénégalais loolu la ñu ëpp. lu ñuy mais fan la ñu ko yëgal 18 mètres ci réew jàmbur. non ngeen waxtaan la rek. mais seen code 11 la wax. ah seen code 11 la wax ñu fas ñu voté ko assemblée nationale. un pays souverain. yoo kay yaay dem nekk fa un bon citoyen. am ngeen daf ngeen avancé yu bari de avec la avec la Mauritanie. waaw. daf ngeen avancé yu bari yu am solo yoo xam ne c'était inimaginable il y a quelques années. mais dañu discuter ak Bissau Guinée yi ñu ni ñoom loolu mooy seen doxalin. duñ ko wàcc duñ ko wàcc. duñ ko wàcc. mais yow boo fa bëggee dem mais nga jëm a kàngam ak loi wu dëkk ba nekk un bon citoyen alors mais nga ni lii ñu nangu duma ko def damay ñëw jënd licence bi ñëw def li ma neex mais boo defee la neex yàddal la alors